bi yee waa gannaaw ba huit heures ba tegal mbokk yi ñoo ndekk El Hadj Assane Gueye euh, ci xabaar yi ci wolof ci gàttal El Hadj asalaamaaleykum. waaleykum salaam sëñ Fall. <laughs> ziar bu baax. mbaa yaa ngi am tan rek. <laughs> alhamdulilah ah. dëkk bi de. waaw mm. xam ku dugal virus bi ci kër gi génne mu ci malal ñu ñor jaay <laughs> malal moom génne ma variant bi moom. malal ko fi indi. variant Kumba Bang. Kumba <laughs> Bang dëgg la <laughs> jaajëf Fall mbokk yi jërë ngeen jëf ci ànd bi ak ñun saa su ne RFM rajo Futur Média ñu ngi leen di ñaanal jàmm di ko sàkku ci ñëpp xibaar yi ak tiis Tambacounda euh, taw yu métti yi nga xamante ni am na ci dimanche ji bakkan bu forot organisateur bu doon taalab euh, machine ci ateliem la euh, courant bi jàpp. Euh, mu faatu ci saa si euh, Touba Mbacké ñu bari euh, toxo fa nu nekkoon ndax ndox mu bari ca gox ya mbedd ya naka noonu ñu ngi tiit daal bu ca pexe ak saafara amul nawet bi metti lool ci ñoom. diwaanu Saloum it naka noonu démb ndox mu bari wàcc na fa moo waral sax ministre bi ñu dénk wàllu assainissement Cheikh Tidiane Dièye nga fa woon diggee na fa ay mesures di dogal ci lu jàmp waaye it daal dina xamal askan wa dina leen ci doxalin tukkee ci ñoom bokk na ci li gën a métti yëf ya maanaam di fatt euh, canal yeen ndox yi jaar ak yeneen njiit réew mi son excellence le président Bassirou Diomaye Faye bi mu bawoo démb Nigéria euh, ci Abuja ndajem CEDEAO bu mu fa doon teewee euh, la mu wax askanu Sénégal mooy état bi gouvernement bi dina def kéem kàttanam ba nekk ci seeni wet oyofal ngir nawet bi xibaar yi bokk na ci it euh, patron de presse yi ko tontu moom njiitu réew mi doon wax ne du nangub chantage lu jëm ci wàllu payeg lempo ak yeneen Mamadou Ibra kan mi jiite mbootaay googee njaati gi këru euh, tasam xibaar di ko xamal ni dañ ko doon xamal rek ne euh, këru presse yi tawat yi ñu nekkee mënuloo ca teg fay fukk ak ñett ci milliards ci lempo waaye du chantage du leneen xëy na woote wàllu la woon ngir moom mi njaboote ñëpp ci technique bi Abdoulaye Diop may sa mbay ci digital gi ñu tàmbalee taw yu métti yi nga xamante ni njeextalaayu bés bi wàcc na Sénégal ci gox yu ca bari euh, muy taw yu njëkk macha allah di ñaan lépp doon barke ci réew mi waaye nag am na ca euh, tiis euh, fern fi fu mu àndal ca Tamba bakkan bu rot ci quartier Salikégné benn vulgarisateur bu doon taalab machine ci atleem la courant bi jàpp jàpp gu métti mu faatu ci saa si ñu dem fa ak i leeral ak papa Ousseynou Diallo. taw bu askan Tambacounda doon ñaan nag daal dina yegg si fii ci diwaan bi ak li ko wër ci dimanche bi nag waaye tiis ak naqar daal di indaale moo du Diaby atam toll ci fanweer ak ñett di vulcanisateur nag moom moo faatu ginnaaw ba mu amee li nga xam ne moom mooy électrocution ci atelier bu nekk ci quartier Salikégné dafa bëggoon taal li nga xam ne moom mooy machine bi nag waaye mu jot benn décharge bu rëy nag moo tax ci saa la ñàkk bakkanam ginnaaw ba élément commissariat centrale defee li nga xam ne moom mooy constat nag ñu jël néew bi daal di ko yóbbu ci morgue bu centre hospitalier régional bu Tambacounda nag indi na njaqare bu bëri ci yenn quartier yi nga xam ne lotise wuñu ko yu mel ni Saare Gileel ak Gurel Bari Tambacounda Pape Ousseynou Diallo rajo Futur Media. jërëjëf Pape Ousseynou Touba Mbacke it euh, ñu bari ñu nu déplacé foofee euh, ndax taw yu métti ak euh, ndox yu nangu bërëb yi ne woon mbedd ya naka noonu ñi nga xamante ni nag ñoo loru ca tawu démb yu métti yooyu ci Touba di tiit rek mu gën fee métteeti bu fekkee ni saafara jibul ngir nawet bi Papa mbay Diaw. ñu fekk leen ñuy dajale seeni i di génn ci seen kër ñi nag nga xamante ni ngiraan neen lan dëkk seen kër gi dafa inondé ba mënatum cee dëkk. suñu kër yéeg yëpp a daanu man sama kër dafa daanu sax. dañuy dem kay. amul fu nekk waaw sama kër rek laa bëgg a yóbbu sama bagage waaye après dama wuti fu ma dëkk. samay bagage yëpp nga nag mi ngi ci biir yére yi rek laa génn. mbir moo daan wala mu jot mu nii lay demee moom. daañu la moom. war nañoo geesu fii. ñu fekk ko ci buntu këram ci Sam Khadim Fall di gas miiru këram gi moom nag day wut ay pexe ngir ndox mi nekk ci këram gi mën a génn kaw tali bi daa am ndox bay dugal si biir kër boo dee génn da ngay xos booy dugg da ngay xos jógee gu fi parce que ndox mi moom maam bari bari goo xam ne lu ne defar nañ ko tamit bu ëllëgee boo nee buñ ko defee nawet ren bi bu déwee ne tamit day jaaraat fam jaaraat ci mbedd yi ak ci tali yi fépp dafa taa rawatina fi nga xamante nii moo di ci buntu mairie bi ci ñaari voies yi loolu ba moo waral oto benn yoon rek la ñuy jaar loolu nag indi embouteillage yu metti Njaga Njaay nekk taximan di naqarlu yéexaay bi nga xamante ni am na ci liggéeyu assainissement bi fii ci Touba. gisuñu dara yaa rien du grand yi yaa jàkkaarloog moom mi ngi nii oto yaa ngi nii di taw tey jii boo yoroon benn solution boo xam ne am na ci mi ngi nii ndox maa ngi nii ci nawet bi nga xam ni taw bi démb la tàmbali ak tey mel nii loolu moom jaaxal na ñëpp vraiment. ci Touba nag gannaaw ba nga xamante ni taw bu métti moo fi am foo xool ci dëkk bi dafa taa am ñenn ñoo xamante ni sax jamono ji ñu ngi génn seeni kër. Pape mbay Diaw. jërëjëf Pape Mbaye euh, taw yu métti yooyu waral na ministre bi ñu denk wàllu ndox meeg wàllum cetal Cheikh Tidiane Dièye euh, mu ngi woon diwaanu Kaolack euh, foofee daal dina dig askan ak taxawu ci ni mu gën a gaawee gën a jàmp sàkku na ci ñoom it ñu moytu yenn doxalin yi jëm ci wàllu dugal yi mbalit ak yenn yuy fatt kanaal yi ndox yi war a jaar ak yeneen loolu bokk na ci liy yokk seeni jafe-jafe ci wàllu inondation ñu dem Kaolack ak soxna Fatou Mbow. ñu daal di koy teeroo ak ay doléances jëmale ko ci wàllum mbënd mi ministre Cheikh Tidiane Dieye di jël ay engagement ngir baral lii di liggéeyum drainage ngir jàppale askan yi nga xamante ne daal dinañu loru ci mbir yu ni mel la. moo tax danañu yokk dispositif mu di pompage matériel yi am na yu jóge Dakar ci yi nga xam ne dinañu gën a gasaat bassin yi pour mu gën a mën a am capacité dana am foo xam ne ay pente bu ñu ko yóbboo fii ñu mujjee Kanda gis nañu ni bu ñu ubbee euh, ay voie ndox mi dina fa dem suba incha allah dinañu fexe ñu def ko rapidement pour que loolu mooy suñu urgence mais jëwriñ bu ñu gàllu wàllum ndox bi ak wàllum cet bi nag di xamle dinañ jël ay matuwaay yu mat sëkk jëmale ko ci askan gi nga xamante ne ñuy sànni mbalit ci kanu d'évacuation yi. bari na luy indi problème nit ñi malheureusement ci quartier yi ñooy jël ay mbalit di ko këpp ci biir caniveau yi moo tax mu ne nañu def changement de comportement am na yoo xam ne presque lag la soit ay station d'essence wala ay structures yoo xam ni yoo xam ni dañuy ñëw barrer les voies yi fi nekkoon loolu itam danañ ci jël ay matuwaay. Cheikh Tidiane Dieye di dalal itamit xel yi ñeel wàllum jafe-jafe bi sàkku ñu daal di ànd ak lii di patience. pour wax population Kaolack nii bàyyiwuñu leen ñu ngi à leur côté comme ni ñu ko diggee woon bi ñu fi ñëwee boo solee bot dinañu sol bot pour dalal seen xel ni état bi dina fi nekk à leur disposition may profiter ci yéen pour le renforcer euh, lutte contre les inondations du affaire wu état kese waaye du affaire wu politique. gannaaw ay taw yu mag yu ñu nemmeeku ci dibeer jile Cheikh Tidiane Dieye daal dinay amal doxum nemmeeku ca Coofat Ndangaan Gaawaan Kawoon ak yeneen yoo xamante ne ñu ngi ci ndox mi di xamle ne Kaolack bokk na ci priorité projet ñeel wàllum lii di ndox ak assainissement Fatou Mbow Kaolack rajo Futur Media. jërëjëf soxna Fatou njiitu réew mi bi mu bàyyi ko Nigéria démb doon fa teewee ndajam CEDEAO ci Abuja digg na askan wi euh, loru ci euh, nawet beeg ndox yu miti waddagum ak taxawu taxawu gouvernement bu senegal ñu teew lu son excellence le président Faye euh, ci micro rajo télévision bu Sénégal. comme nous l'attendons les pluies commencent. Et dès que les pluies commencent aussi les problèmes liés aux inondations commencent. comme ni ko doon xaare taw yi commencé nañ te bu taw yi commencé jafe-jafe yi nga xamante ne dafa jëm ci wàllum inondation day door itam xam ngeen ko nag ci ñetti weer euh, mënuñoo def ay jumtukaay yi nga xamante ne dana tax ba inondation daq ci réew mi loolu seetlu wi ñu war a def la waaye teewul gouvernement bi dana nekk ci wetuk askan wi te dana ko defee na mu ware laataa ma wàcc ci avion bi waxtaan naak premier ministre Ousmane Sonko ak ministre de l'eau et de l'assainissement Cheikh Tidiane Dieye ñoom nee nañ ma ñu ngi ci wetuk askan wi ñu ngi euh, saytu situation bi ni mu ware xool itam fan la jafe-jafe yi gën a tare fa euh, saafara taxaw lu jëm ci wàllum secours yi te itam nekk saa su ne ci euh, wetuk euh, askan bi. aux côtés des populations jusqu'à la fin de l'hivernage. moom président euh, Bassirou Diomaye Diakhar Faye ci ba muy dalal ayubés bi ñii di ndawi journalistes yi muy convention jeune reporter waxaale na fa presse wàllu lempo yi ak it na mu nanguwulay chantage ci wàllum pay gi lu munta ñàkk la. loolee nag euh, patron de presse yi jaaree ko ci mbootaay gi di CDEPS euh, indil nañ ko ci tontu njiit la rawatina ci bataaxal euh, boo xamante ni lettre ouverte la xamal ko ne xalaatunu lu toll ni tarafatal tey ni chantage jëmee ci moom daa fekk ne mooy njaboote ñëpp ci it presse bi ci boppam jafe-jafe yi muy dund munu caa teg fay lemp fukk ak ñaar ci milliards waraloon ñuy xaar ci moom ak gungeeku taxaw moom jiitu réew mi ni ma ko waxee jiite ñëpp Mamadou Ibra Kane moo jiite euh, CDEP suñu tewlu ko ak Mouhamed Diop. toutes les entreprises de presse dañu nekk en situation de quasi faillite xaalis boobu ñu leen di réclamer tey muy treize milliards d'impôts loolu amuñu ko xanaa dañuy rey rek wala ñu tëj suñu entreprise yi te bu ñu tëjee suñu entreprise yi loolu day gaañ Sénégal néew ma sax affaire emploi yi nga xam ne dee nekk problème euh, donc pour la jeunesse donc loolu moo tax ñu ne le président Macky mu dimbali ñu daal di effacer dette fiscale bi léegi nouveau régime bi nee na moom loolu munu fi am mais dans tous les cas ñun actuellement mënuñu fay donc <laughs> d'accord nañu bu ñu proposer yeneen solution bu nga xam ne dina permettre ñu entreprise yi di fonctionner président de la république institution la ñun mënuñu cantello président de la république ñun lu ñu mun mooy ñu defal ko un plaidoyer pour gën ko xamal ne secteur de la presse dafa important ci réew réew bu amul presse réew boobu démocratie mënu fa dox réew boobu mënul am souveraineté réew boobu mënul am mënul am développement rôle bu ñu joué ci alternance politique yu xaw fii Sénégal kenn mënu ko xayma ci xaalis tellement dafa rëy ay milliers et des milliers de milliards la euh, rôle bu ñuy joué dans l'éveil de la conscience citoyenne ay milliers et des de milliards la président de la république nga gën a xam rôle bu presse mun a joué ci biir réew donc dañ ko war a yombalal liggéey bi dans le cadre de la loi RFM juróom-ñetti waxtu tegal fukki minutes ak ñaar pour man RFM mooy rajo bi gën a jege askan wi secrétariat exécutif national bu APR alliance euh, pour la république euh, ñooy ñaawlu kàddu yu Mohamed Bilal jaata maire bu Kër Massar Sud jëmee ci ne euh, président Macky Sall jéemoon na ay yoon faat bakkanu Ousmane Sonko ci communiqué seen bu APR ñaawlu ko ne procureur ci boppam sax moo waroon autosaisiru jëm ci ñaawteef googee mu yëkkati moom Bilal Diatta ñu ne jëme ci président Sall seen bataaxal ñoom waa APR Boubacar Dieng moo na ko jàngal. secrétariat exécutif national bu alliance pour la république jàpp ni lu Mohamed Bilal Diatta wax waxuwut waaye itam xel mënu ko nangu ndaxte dafa jiiñ ki fi nekkoon njiitum réew di Macky Sall na jéem naa faat lu dul benn yoon ki nga xam ne moo di Ousmane Sonko bi mu nekkee si ku jékki politique gi li nu mel APR jàpp ni ay dérapage la ba tax itam ñuy sàkku rek si procureur de la république mu daal di ubbi ab l'enquête si mbir mi waay itam topp ki nga xam ne bilaal jaata eh, jiite maire bu Kër Massar Sud si yoon su fekkee nag parquet bi deful lu nu mel si nu mu gën a gaawee secrétariat exécutif national bu alliance pour la république eh, jàpp ni rek ñoom nañu jël seeni pexe eh, jëm si wàllum politique waaye itam lépp loo xam ni yoon may na leen ko ngir ñu topp ki nga xam ni moo di Mouhamed Bilal jaata waa APR ba tey si seen ab bataaxal ñu jeexal seeni kàddu ak anam bu ma gën a dëgëree ñoom nag dañoo gis ni rek su fekkee ni amul benn jéego boo xam ne nag way politique yi def nañ ko ngir dal am ci langue gi dinañ daal di tontu ci ni mu waree te duñ ci ànd ak benn yaafus maanaam gatsa gatsa. sport geeg Malal Junior Diagne maa ngi lay nuyu Malal. maa ngi lay fay Alassane. bismillah ñu dooree ko ak wàllu karaté si euh, jeu yu ñu jagleel euh, li ñu duppee euh, zone west Afrique 1 Sénégal nag dem na ca daal di kan yóbbu ay combattant ba daanaka bëri na ci ay médailles yu ñu am ci wàllu or lépp nag ñu ko amee ci ñu duppee ay kata di xeetu combat imaginaire yu gars yi def mu ànd ak nag ay jéego yu yu teg yu war a leer yu àndut ak benn tappale Sénégal am ci ay yu bëri bëri président fédération bi di El Mokhtar Diop ni lii liggéey la bu nu yàgg nas moo tax ñu am résultat yi ñu déglu ko. karaté sénégalais mu ngi fii si Conakry di participer si championnat d'Afrique région ouest bi nga xam ni moo tuddoon zone 2 Sénégal nag déplacé wu ak 15 euh, athlètes donc jongante yi amoon ci kata Sénégal moo gagné médaille door yëpp Aïssatou Diène moo gagné kata catégorie cadette Cheikh Tidiane Sarr moo gagné ci cadet yi Ismaïla Barry moo gagné si junior yi Yande Diagne moo gagné si euh, catégorie euh, senior dame juste rappeler que vendredi bi moom séminaire Angleterre arbitrage moo amoon égyptien bi nga xam ne mooy meilleur arbitre au niveau mondial moom la waa WKF envoyé woon fii pour mu def euh, pour mu animer séminaire bi en compagnie de euh, Doumbé Fall arbitre mondial ak euh, Lamine Gueye mi nga xam ne moom mooy président commission régionale bi am na ci ay arbitres une dizaine d' arbitres sénégalais yoo xam ne ñoom participé woon nañ ci ak ñetti coach yoo xam ne aussi def nañ stage bi ba pare waroon def seen examen ñoom coach yi ñoom ñoom ñëpp. jàll nañu voilà loolu moo fi amoon tey nag ci la combat di continuer te am nañu yaakaar comme résultat yi ñu defoon ak Qatar rek euh, résultat yooyu suñu athlètes yu yeneen yi nga xam ne ñoo war a combat muy comité bi leen def résultat yu mel noonu ñu wéy ba léegi ci wàllub euh, jongante yooyu Sénégal di ci am ay médailles ñu ne ñoom nag ñu ngi sax wéyal seen jongante ñu yàpp ne euh, championnat yi itam dinañ ci mën a sukkandiku ngir euh, waa fédération bi mën cee xayma ak xoolal bu baax a baax naka lay def ba mën a dem ci championnat du monde karaté bu ñu jagleel cadet yi ak junior yeeg espoir yi loolu nag ngir gën a mën a tàggat gone yi ba ñu mën a yegg ci yooyu jongante war a xewee ca Suisse ci weeru octobre bii di ñëw. ñu wax wàllu footballu jigéen yi ñi di waa aigle bu Médina jot nañu euh, championnat bu Sénégal bi gannaaw si ba ñu euh, dóoree ñii di doon jonganteel muy waa jàpp olympique ñaari bal si dara ba mu jeexee nag euh, kii di Cheikh Tidiane Diouf moom mooy di entraîneur équipe bu aigle di Médina yi nee na rafetlu nañu ndam li ndax fukki at ak juróom ngi nii aigle de Médina yi nekkuñu woon champion du Sénégal ñu déglu ko. contentement contentement parce que yombul doublé yombul yàlla jàppale ñu ñu def ko kon satisfaction totale la ñu mën a am ñu waaw parce que eh, équipe bi ñu doon dajal peut-être ñun dañ leen xam dañ leen jàng jàngal leen semaine bi yëpp dañ doon liggéey ci loolu euh, nit nag dina liggéey si benn affaire match bi ñëw mu jaar à côté mais nañu sant yàlla li ñu liggéey yëpp tey dañ ko réussir sant yàlla moo tax ñu dugal dëgg. ngeen réussir euh, doublé ren. lan mooy sa sa secret coach lan mooy seen secret. liggéey équipe bi liggéey rek la tàmm liggéey liggéey rek moo liggéey rek euh, la ñu xam ngir mën a kon daal di doxal ñii nag euh, di itam beneen équipe bu ñu doon dégg ren bu wax a baax ci football jigéen ñi jeexal nañu nanu euh, defee seen saison bu mu jeex am nañ ci ndam moom moo di équipe bu nekkoon di góorgóorlu ci d bi ñu duppee ko Kourame FC jot nañoo jeexal gannaaw ba ñu itam góor góorgóorloo ba amaat beneen ndam nekkaat champion dañoo dóor ñoom doraat ci mbuur ci seen jongante bu mujj ngir jël raw gàddu gàddu saan. jigéen yaa ngi football. jàmbaar lañ. jigéen yaa ngi Sénélec. Mm. jigéen ñaa ngi ci courant bi. jigéen ñaa ngi partout. Mm. waaw te dinañ jël réew mi bis. lenn rek moom moo métti ma. pale ba lañ jëm. gisatuma siste taxi yi laa gisatul. Ah. waaw yooyu moom dafa ma métti woon. da nga koo tàmm woon lool xam na. waaw waaw <laughs> jërëjëf Malang. RFM rajo askan wi. Anna Rocha ci chronique bi. maa ngi leen di nuyu mbokk yi weer bi ñu doon jégleel sargal dem ci yàlla Oumar ndaw jeex na ni ki ajuma ji weesu ci délégation Wallonie Bruxelles fii ci ndakaaru weer boo xam ne amal nañ ci ay conférence ay panel waaye itam documentaire ci lu jëm ci wàllu euh, jaar-jaaru Oumar euh, Ndao cérémonie de clôture bi amal nañ ko kon ak i euh, performance ndaw artistes yoo xam ne xarañ nañ ci lu jëm ci wàllu fecc ak ak woy Salamata Ousmane Diallo fekkee na ko danse contemporaine trapèze loole lépp kora ak saxophone daal di koy gunge cocktail artistique bu jéggi dayoo ngir daal di sargal ndem si yàlla Omar Ndao l'éclat d'un passeur de culture et de savoir noonee la ñu daal di tuddee performance de danse bi nga xam ni élèves yu nekk ci académie Moustapha Guèye ñoom ñoo ko doon amal Alexandra Garcia nekk chorégraphe ca boobu lekk académie. joxe pour ñu liggéey si Omar dina ci sawar parce que gis ku mel ni moom Sénégal jafe-jafe lool lool lool lool lool def ko. professeur Ibrahima Wane mi nga xam ni moo coordonné bi lekk hommage la ca gën a neex bokk na ci ndaw yi nga xamante ni si ni soob nañ seen yoxo bu baax ci bi lekk hommage. ay ndaw lañ yoo xamante ni am na luñ jot a jàng ci Omar luñ jot a tànnaan ci moom ci wàllu théâtre te loolu ñoom wane nañ ne lu leen amal njëriñ la ci la ñuy sukkandiku ngir defar lu bees kon mel na ni lim fi liggéeyee law na ba ci ñi gën ndaw te aussi ñu ngi jàllale ñu rot ci benn weer ñu daal di sargal kii di dramaturge dem si yàlla Omar ci ay panel projection de film documentaire ak benn nataalam bu ñu daal di accroché ca place du souvenir ngir daal di koy fàttaliku. Soxna Dieng Mbacke moom delloo na njukkal Ahmadou Kara Mbacke ci ab téere bu mu dippee phénoménal général Kara ñeenti at mu ci euh, liggéey ci euh, téere boobule ngir fexe daal euh, askan wi gën a xam borom këram ñu déglu ko. biñ téere déjà ci boppam moo moo jafe maa ngi doog a jànkonte jafe-jafe boobu. léeg-léeg mu ëpp léeg-léeg léeg-léeg mu néew foog nga balancer ko loolu moom jafe na maa ngi rendre hommage bindkat yëpp bind nag ci ku mel ni Cheikh Ahmadou Karam Mbacké Noreyni ni moo raw ndax euh, dafa am ay melokaan yu bokkul yàlla daf ko defal tamit mu nekk koo xam ne euh, Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul rek mooy itam ñu waxee ne àdduna bi moom jàpp ci dara dara dara lu dul maam jeeg giddam Euh, borom Touba. moo tax euh, ci foofu laa def accès sama sama livre xam ne su ma ko yóbboo foofu rek li ci des yëpp day yomb li ci des nag may nettali euh, ay xew ci ci àddinaam bi mu nekkee tu tànk bi mu doonee mag bi mu doonee xalifa Cheikh Ousmane Mbacké Noreyni Mathieu Beyti. jaajëfal Idi Sow mi taataan yi les kaddu mbokk fi la yem ci seen chronique culture di leen jaajëfal bu baax a baax ci déglu bi dig daje ëllëg incha allah ci yeneen i xibaar ñal aada ci RFM. sumari.com ak association bi lëkkale assureur du Sénégal ci projet bi jëm ci digitalisation attestation d'assurance automobile ñoo leen ni may li ci yéenekaay yi. yéenekaay yeeg Mamadou Mouhamed Ndiaye. jërë ngeen jëf dëkk bi tooy bay seet mënees na koo seetlu daanaka ci mboolem yéenekaay ñu xëyandool l'observateur ne ñu taw démb waa Fajar moom yéenekaay bi ñu ko wax dolli na ci di ñu xamal ne bari na ay kax ci ak yoon ak jàkk yu fees dellakum ndox Vox Populi bind ci taw yu njëkk inondation yu ndox mu bari ak yu bari Vox nee nañu moom la ñu gis ci Dakar gis ko ci Touba Touba gis ko ca Kaolack les écono ñu ndox dafa laal suuf rek dégâts yi tàmbali ci réew mi Ndakaaru Kaolack Touba ak Ndar ñoom ñëpp jot seen wàll fii ci Ndakaaru hôpital Philippe Maguilène Senghor bi fi nekk les écono mi ngi ñuy wax ni ko ndox mi def te yamu fa ne xàll wi ñu tuddee avenue Bourguiba dafa feesoon dell akom ndox te noonee la ko dundee ca Castor dundee ko ni ca Grand Yoff dundee ko ni ci Soufar ndox mu bari mi ñu gis ci dëkk bi moo waral ca Kaolack bari na fay quartier yoo xam ne nit mënu faa dem ba mu jur nag jaaxle gu rëy ci askan wi ca Touba it yéenekaay bi mi ngi ñuy xamal ne bari na fa ay quartier yoo xam ne askan fa dëkk tonk la def jamono ji boole ca di ragal situation bi gën a compliqué yi ak dégâts yu njëkk yu jur journal Tribune mi ngi ñu wax ne ñooy jur jàng ji janoo jamono ji ak ñoom Jomaay ak Sonko yi ak fi ñu def ay dégâts journal Tribune ne ma standard keroog samedi ci bésub setal sunu réew gi président de la république santaane soleil national mi ko bind teg na ci bind ne askanu sénégal génn nañu bokk ci set setal mu ne woon ñaareelu bëccëgu setal sunu réew ci réew mi premier ministre Ousmane Sonko mi ko defee jowoon ca Ndar ay kàddoom ci yéenekaay bi muy sàkku ci askan wi ñu bañ a teggi seen tànk xam na fayit ay audit yu ñu war a def jëme ci ay programme yu taxawaloon ci réew mi ci wàllu assainissement la mu defe ji woon ca Saint-Louis moom Ousmane Sonko journal mu defee la def bu nuppi taw bi dafa ñëw yàq lépp fa mu ne woon moom Ousmane Sonko di ca Ndar maire ba fa nekk moo nekk ci xët mu njëkk mu di Mansour Faye ubbil yéenekaay bi ministre de la république ba woon di Mansour Faye ci waxtaan yi mu xëy séq ak wàllu observateur ma nga fay xam ne ne ba fi nekk nii kenn xamul kan mooy président de la république Ousmane Sonko ak i menace Mansour Faye ne yëngalu ko yëgalu ko sax yaramam ndax yi fi xale la téeméeri fan yu njëkk yi ñoom Diomaye ak Sonko def ci bopp réew mi mu ne catastrophe la wax na it moom Mansour Faye ci kàddu yi fi Aliou Sall yëkkati woon bu yàggul li Aminata Touré da koo sosal ci lu mu ko waxal ci xaalisu covid fukki fan ak ñett ci weeru juin ci lañ ko doon atte waaye ci càkkutéefu avocat yi Aminata Touré yi moo tax ñu dàq audience ba ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru sulet Bilal Diatta maire bu Kër Massar Sud le public yéen a kay ne nañu waa APR ñoo ngi sàkk ci procureur bi mu wax ci moom wax ju mu wax di ay tuuma yu mu yëkkati teg ko ci deru Macky tuuma yooyee moom mitti Macky ne Bilal docteur Ameth Ndiaye mi ngi ñuy wax ci xët mu njëkk Walf Quotidien li mu war a def mooy fexe ba fàcc xelu askan wi président Sonko dugal ci premier ministre Sonko Yoro Dia dib journaliste doon nit kuy gëstoo ko xeltu ci politique réew mi journal L'As mi ngi ñuy wax ay kàddu yu mu wax démb ci émission Grand Jury ci rajo Futur Média Yoro Dia nee na Ousmane Sonko ak Jomaay Faye dafa yàgg rek waaye ci séddoob yóbbal ci la ñu jëm maanaam tàqaliko ku nekk ci ñoom ñaar jël sa yoonu bopp sumari.com Touba Darou Salam Caro Prestige ak association bi lëkkale assureur du Sénégal ci projet bi jëm ci digitalisation attestation d'assurance automobile ñoo leen doon may li ci yéenekaay yi ñu àndoon ci ak ma Mamadou Mouhamed yi di ko gërëm ak yéen ñi doon teewlu xibaaru 8h yeeg RFM bakkan bu rot ca Tambacounda ak taw yu métti yi nga xamante ni wàcc na démb ci dimanche di ci gox yu bari ci Sénégal benn ganisateur la bu bëggoon taalab machine bu woon ci atelier am courant bu am doole bu ko fa jàpp mu faatu ci saa saasi. tubaam Mbacké gox yaag kër yu ca bari ndox ma nangu ko moo waral askan wa jaaxle lool bu nu ca jógul ak taxawu jëmee ci ñoom ku may wul nawet bi ñu ne dina métti lool ci ñoom Kaolack it métti na ba noppi ci ñoom moo waral sax ministre assainissement nga Cheikh Tidiane Dièye na leen askanu Kaolack mi ko xamal ni sonn nanu euh, dig na leen ak taxawu ci wàllu ay dogal yoo xamante ni euh, yu jur saafara la waaye ñoom it waa Kaolack euh, ñiy faral di jël ay mbalit ak yu ni mel di ko tàbbil ci kanaal yi jàlle ndox mi bu nu yeboo bokk ndax loolu bokk na ci li yokk seen ab coono njiitu réew mi son excellence le président Bassirou Diakha Diomaye Diakhar fay bi mu ñibbisee bu ba Abuja ci Nigéria ay kàddoom yu njëkk mooy gouvernement am dinañu taxawu na mu waree askan wi ba ak oyofal gu baax am ci wàllu nawet bi SEDEPS mbootaay la Euh, njaatige kër euh, tasam xibaar yi tontu nañ ko moom jiitu réew mi doon gis ne dana ko bëgg defal ay chantage ak yeneen lu jëm ci wàllu payam lempo gi Mamadou Ibra Kane mi jiite mbootaay gi di ko fàttali rek ne daa fekk ne moo njabootee ñëpp moo waral bu jooy di am ñu jooy jëmee ci moom li wolof naan <laughs> kuy wala boog naar yi sax ñoo ko wax waaw kuy woote wollu fa nga ko yaakaar rek nga ko jëmee euh, kon moom bu mu xalaat ne ay chantage ak yeneen la ndax dañ ko def ne mooy numéro un sénégalais ca bi nag 13 milliards yi attanunu ko mënunu ko mu leer <laughs> Ablaye Diop nekkoon ci technique bi El Hadj Assane ci micro bi digital géeg may sa mbay euh, ñu yendu ak jàmm